ndawal ONUDI si Touba jublu si ngir nag waxtaan ak ñi nga xamante ni ñi ngi yëngu si wàllu transformation des produits locaux groupement bi ñu dëppee GIE Sopp Serigne Fallou ñoom nag ñoo dalal kuréel gu mel ca booba Khalil Qatar di expert sa ONUDI ñoom nag leen tax a jóg bokk na si ngir jàppale leen ñu mën a relancer seen activité gën a am koom fànq seen i jafe-jafe loole nag ginnaaw bi nu jógee si mbas mi di Covid 19 bi nu jàpp am na njeexintal yu doy waar seeni liggéey. et de définir un plan de travail donc euh, on rof. dana ñëwoon tey ngir nag xool ay pexe yu ñuy liggéey ak kuréel gi ñu fi fekk. gën leen jéem dimbali ba ñu mën a taxaw jàppal leen tamit si ay jumtukaay ndaxte gis nañu ni kat ñi ngi jóge si euh, ay jafe-jafe mooy Covid 19 fi amoon su ko defee ñoom dinañu mën a taxawal seen GIE bi mu gën am doole ñoo ngi sant nag ñu fi fekk ñu bokk si groupement bi ku si mel ni madame ko jiite ñu ngi koy sant bu baax ñu ngi koy dégal ni kat ñun daal ko jàppale dinañ ànd ak moom pour dimbali ko comme ni ko waxee woon rek yëm leen gindi euh, yëm leen tamit génn si jafe-jafe yu nekk ndax seen GIE bi gis nañu ni mi ngi def ay jéego yu am solo si wàllu bii di wàllu euh, transformation lépp jàpp nañu ni ñu ko defee rek mooy yembal koom gi si biir euh, réew mi. moom jigéen ñi jàpp nañu ni kat lu ni mel lu nu yàkkamti woon la te nag di xaar ñu accompagner leen si financement ak ay jumtukaay. dañoo ki am crise fii Sénégal crise lañ nekk. ndaxte boo xoolee ñun dañuy transformer mais dañuy def euh, maraîchage dañuy dañuy dañuy produit di transformer produit di transformer boo xoolee tamit euh, am nañ partenaires yoo xam ne si ne ay filière la ñii filière ñebbe ñii filière mil ñii filière sesam ñii filière bisaab sa liggéey yooyu yëpp instant bi nii dafa taxaw kon ñun ñi ngi xaar ci ñoom pour ñu appuyer ñu. ngir nag indi ay saafara seen jafe-jafe yi kuréel gi jóg na taxaw tem ngir waxtaan ak ay bankam ak partenaire am indil leen li nu sàkku si ñoom. Et c'est la raison pour laquelle on s'est appuyé donc on nag euh, li waral ñu def lii am na fu ñu ko teg. ndax am na ñu ñuy liggéey lu toll ak euh, ñeenti banque ñuy suñu partenaire dinañu nag jéem wax ak ñoom ñu xool jàpp si liggéey bi fexe ba jafe-jafe yëpp ñu fànn ko financé jigéen ñi en tout cas daal képp ku bokk ci programme bi dinañ jéem a fexe daal doo ko wute ndax ñoom seeni i yi nga xamante ni moom la ñu woon ñu nit accompagnement la def accompagnement yi dañ koy wuti waat indil leen ko ànd seet nag ñu seen xam-xam màcc ci wàllu di fàttali kuréel gii di GIE jàppoo soob Serigne Fallou si Touba li nekk si biiram doon na ay junne junne jigéen yu yëngu si wàllu transformation des produits locaux.